xam nga bu ñu changé ab nguur defaguñ at ñu am foo xam ne dañu fa duggaloon liste boobu nga xam ne euh, ñu ne génnee nañ ñu fa. Mm-hmm. ñu ne list boobu ab liste grise lañ koy dippee. du gaf yi. du yi ñu ne ana ñoo fa ne. Mm-hmm. ñi nga xam ne. Euh, list boobu dañ ne cette liste grise identifie les pays dont le régime de lutte contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme présente des déficiences stratégiques Sénégal dafa bokkoon ñu ne ci liste boobu xam nga soxna Diarra Macky Sall moom ay mbiram dafa xaw a doy bu ñu waxee blanchiment de capitaux ñu wax corruption ñu wax yu bari dañ naan loolu mat na fee bàyyi xel dafa am benn mot boo xam ni ñun sénégalais ñi ngi ko xam ci nguuru Macky Sall mooy wàllum terrorisme wàllum terrorisme soxna Amina Euh, Mali gis nañ li fa xew ak Burkina Faso ñu nekk fii ci bokk ci suñuy dëkkandoo dëgg la jël ay matukaay lu ama ama am solo la parce que dañ naan gouverner moom euh, fàggandiku xam nga di def ay prévention maanaam ba bañ a bàyyi comme lu ñu dal ci dex yi ci kii bi euh, fleuve bu Sénégal bi Gàmbi yi nga xam ne nee nañu muy OMVS ak muy ñu bëri ñoo xam ne ay acteurs lañ yàgg nañ di wax depuis avant même nguuru Macky Sall ba ci nguuru Macky Sall mooy ne ndox mi ñu gis bu lii dakkul tôt ou tard dina yéeg ci kaw nit ñi ñuy def noonu def noonu ba gis nga ren nga xew-xew dugg ca tool ya dugg ca ñu bañ ne du ñuy jël suñu matukaay dëgg la. jël suñuy matukaay lu baax la ci wàllum terrorisme ak yëpp gis nga soxna jaar euh, africain ni muy wutee xaalis nu mu ko wutee baax dañoo xëy rek gis ay booro almadi ak yenn ci espace yarul tudd loolu borom xam-xam yi xam nañ fi may waxee ñu leen di wooyee ay zone militaire Macky Sall wàccee fa gendarmerie ak armée ñu ne ci info yi ñu jot dafa am ay terroristes yoo xam ni dañoo commencé dugg ci réew mi boobu ay affaire u coow Ousmane Sonko amagul de ñi terroriste boo duggee alma di gis ña nga armé wu jusqu'aux dents ñu ne dafa am ay financement yoo xam ni sont destinés pour la lutte contre le terrorisme mm-hmm. gis nga soxna jaar mm-hmm. tappale baaxul façon yi ñuy wutee xaalis léeg-léeg mu lor la nga gis loo xam ne day romb di dem naam am na xaalis mais bu ca dugg boo ca duggee sax mbir ma mën naa soppeeku nekk dëgg ñu organiser kuréel gis nga man bii di wax yow nii yàlla may yàlla jéggal ci li ma naan man dama toog stade du bari di seetaan match man ak Omar Diaye match su fii nit la woon sama téléphone bi ni kar colonel ba jiite woon section de recherche daal di may woo foo nekk ma ne ko géejawaay ñëwal gendarmerie dañ maa convoqué déedéet noo ñëwal rek maa ngi koy nuyu sax xam nga koo kan la woon hmm. yàlla dogal na tey moom mooy boroomu këru Anta Babacar Ngom le colonel Diack moo jiite woon section de recherche ñu convoqué ma telli telli daw lan lañ ma doon doyee mooy wàllum terrorisme gii ci biir dëkk bi ak la communication nan la ñu war a waxtaanee ak sénégalais yi xamal leen ne ay menaces am na ci suñuy bunt waaye nan la ñuy waxtaanee itam ak sénégalais yi ba du ñu paniquer su ko comprendre wala ndax boobu ñii dañu ne Macky Sall ci boppam moo fi indi bëgg a indi affaire terrorisme pour bénéficier wu ci financement occidentaux yi ñoom waa kër Macky Sall yi ñu ne. déedéet lu existe la xaalis ñu cee dugg mais sénégalais yi duñu xaw a paniqué buñ déggee ñu naan ay waaw sa waay sa waay am naak amul waaw terroriste yi ci réew mi nekkuñ ci réew mi léegi nag nan lañu war a communiquer ba sénégalais yi duñu paniqué waaye itam nan la ñu war a communiquer ba sénégalais yi gëm ni lii lu am la wala lu mën a am la moo tax bu ñu toogee bañ ne Sénégal rocc nañu ca liste boobee ah man day duma état du ma démentir kenn. ci ay ci ginnaaw nga ay attaques <laughs> ñu teg ci ay presque ñeenti at ñu commencé di dégg naan ay attaques terroristes ak ay attaques euh, ay xaw ma ay salafistes ak ay. bon ko defee nag yow ñi la doon woo noonu sax pour naan la lii ak lii après yow est-ce que yow doo leen doo leen woowaat sax yow comme que ñoo la convoqué woon est-ce que yow doo leen convoqué ne leen waa muy grand. <laughs> ci ni ñu dégg kon yéen mille personnes yi ngeen jàppoon dugal leen ci kaso bi libéré waat leen nii ba du ñoo ne woon terroristes yi ngeen ma doon wax ne duggoon nañ fa ca atum belees. ah est que néew ne temps yooyu booy dañ gën a nekk xale terroriste yi dañ gën a nekk xale am ay huit ans. la kenn dul yor ci caaxaan. état la lañ dul yor ci ay njuuj njaaj ci ay dóor ak ay link da ngaa foog nit ñi rek ñooy link ah loolu nekkul woon xeetu link is nga laal say link yow teg say stratégie pour mën a am xaalis. na force dinaa créer ay terroristes. c'est grave de. toogee nag bañ ñu wax nañu maanaam ñoo ngi ñoo ñu cay kaccat ah. Mm-hmm. nañ sant yàlla ak continuer rek jël suñuy matukaay. Mm-hmm. en tout cas daal xam naa ni daal ñi jiite réew mi moom ah nañ leen nekk fii di leen tuumaal naa leen ay xale lañ rek ay xamuñu état ñun de liñ ci jot a xam a kës néew. bu yóbboo daal nga def nga nga nga nga nga def attention. mbaa di jubal jub jub jubal jubbanti bi ñu doon wax ñu ngi ci d'accord. loolu moom amul sax ma dem te ñëw. Mhm. te nag yaakaar naa itam képp koo xam ne en tout cas président Diomaye Faye moom wax na ko nee na solidarité de corps solidarité gouvernementale d'accord nañu waaye nag ca jub jubal jubbanti mhm. sa naataango sàcc ba pare def giraawaali nga ne dafa am ay dossiers yoo xam ne man dama koo jël teg ci sama. Diomaye ñëw déconte. Diomaye ñëw déconte ko. <laughs> ba ba ba Diomaye ak Sonko jàpp conte bi déconte ay ñu génnee Sénégal xaw ma ci. du kese de ñëpp jàpp pour conte bi jóg. conte bi benn loxo mënu ko dindi. loxo. ay loxo dindi. conte wallaay da ngeen a da ngeen da ngeen nekk gone rek mosoo leen koo gis. waaye baaraamam ba dong bu ne ko cëkk cim këyit te dossier ay këyit la baaraamam bi rek bu ne ko cëkk ci këyit ku ko rocc këyit waa fay des waxoon duma nag. moo war a jël rek ab concam ne ko ca nas kii. ban erreur de communication. Mm-hmm. dafa def erreur de communication honorable bu baax a baax. parce que am na yoo xamante ni waru sa génne si laaminu président. parce que tey jii digganteem ak yàlla la. waaw c'est loolu la. yow yow kon yow kon yow yow yow xamoo ma ki ah. moo tax nga naan erreur erreur la erreur la def. non dama ni même si c'est waru ko woon a wax. waaw yow léegi voté sans carte d'identité moom mu euh, erreur la. Ah. Macky euh, ngi noonu daal mais am na yoo xamante ni moom warul génnee si gémminu président ñuy xam ne yow mi am na dossier booy teg loxo ak boo dul teg loxo xam nga même booy def sax am na yenn mm-hmm. def def yoo xamante ni dafa war a excusez moi ma këf kàddu gi mm-hmm. am na yoo xamante ni boo koy def sax danga ko war a def liñ naan sutura parce que euh, président yu bari peut-être que amaana dinañu def yenn yi mais tey ji yow nga def ko ñu lay ñu lu olof njaay naan diñ dëmm nga soccoo yeelu liir ah. ñu la koy jiiñ ba pare yow nga taxaw daal di koy avouer publiquement daan ni man maa ci dóor conco côté boobu moom erreur yi gën a mag ci déclaration ci la benn dossier la woon boo xam ni sénégalais yi xam nañ ban dossier la te jamono jooju man dama doon revue de presse mu amoon ay mbir yu doy waar yu ca am Macky ose jàkkaarloog sénégalais yi les yeux dans les yeux ne am na nit ñoo xam ni dossier yoo xam ni su ci procureur naree def dangam bu ko ca defee li muy jur bu ëllëgee mooy gën a garaaw ka buñ dëggee bal bi terrible lu garaaw a ngi noonu. xanaa daa fekki ko ka mu daloon mu jege ko. maanaam dafa am ay sénégalais yoo xam ni. ay intouchables ñii ay politiciens lañ. ñii taskatu xabaar ñii ay kilifa diine ñii ay star ci xaw ma lan dafa am ay sénégalais. yoo xam ne ñoom dañu dañu dañu dañu spécial daal. kenn waru leen laal. merci beaucoup des intouchables ñoo xam ni Macky demoon na léegi ba def ci bopp bi ne am na benn catégorie boo xam ni bokkuñu ñoom maam jaara ñee ak ñoom Amina ñee ak ñoom Abdou Fall ak ñoom am ay dara ñooñu beneen catégorie la. Mm-hmm. mais dafa am beneen catégorie high class ñoo xam ni level bi fi ñuy laal. Sénégalais Pro Maxi quoi. voilà Sénégalais Pro Maxi. te 18 bi lay doon yoo xam ne génnagul teg leen ci kaw. ñun ay XR lañ. xam nga ak ñoo xam ne ci suuf bëggumaa tudd yeneen marques balaa ñu naan dañ leen di tuutil. ay Motorola. non bul dugg foofu ak ay Sagem. Nokia touche. Amiya Amiya yow Amiya moom Nokia touche nga. ah yow fais très attention yow ci jamonoy mag yi da ngay teel a képp. dañ lay mais loolu loolu loolu fi jaaraan ba garaaw loolu sénégalais bi mooy dem ba dootul amati confiance. Mmh. da ngay gis sénégalais boo xam ne daf xoolal day am ay ambition sax ci dëkkam non danaan jaru am na fi ay sénégalais yoo xam ne tey ñu ngi nekk à l'étranger. wallaahi giñ naa ko de man gis naa leen man Suisse rek ma fa demee barki démb waaw mais mbëri ñëw leen na ngeen jàpp ci bagage yi gaayeen bu yàlla ji dogale nga ne ma lan yàlla tere. Ahmed yow gars yi Sénégal waxuma la sax mbokk yi ñoo lay njëkkal rey mais bon <laughs> doon nañ jéem a tànte non yàlla tere. Mhm. Ahmed ñun bàyyil nii ñu toog rek. ñii naan la ñun dee ñun def gaayen ba suñ njaboot gi gaayen daal di am na koo xam ne ci ñi léegi nii Angleterre ci ñi ma léegi nii jour bi ñu tëjee président Ousmane Sonko la laaj ma lan la def xam lu mu def dañu def benn tri line ñun ñett ñoom ñuy waxtaan dugalaat nañ sax après almaan mu ne ma amet man jour bi ñu téyee Ousmane Sonko jour boobu laa xotti sama carte bi ñuy dem ci député yi nii nii nii nii laa defaraat nii samay këy dama amoon xew Italie le samedi mais dematuma parce que il faut que je vote mhm. le 17 damay voté mais suñ xew bi le 16 la xam nga lan moo indi loolu est que xam nga loo indi loolu confiance ñàkk dañoo demoon ba askan bi ñàkk espoir ci seen réew amatuñu woon espoir. te loolu yàlla nañu ci yàlla musal. Mm-hmm. Japon bi ñu ko bombardé ba mu mokk. les japonais de l'extérieur ñi nekkoon ci yeneen dëkk yi ay Amérique ay Chine ana ñooñu ñoom ñoo ñëw defaraat réew mi. Mm-hmm. mais imaginez yow nga dem ba ñàkk confiance ci sa réew bay xotti say carte ak ñoo xam ne tey boo leen tuddalee Sénégal ne leen waa sa waay gars yi doo ñëw investir lii nga am Europe yëpp mu ne eh, ko waxati am ay doom ñuy football. nekk bitim réew nga ne waa mais sa waay yow sa doom ji mais sa waay du du du ñëw kii kii il fait partie des meilleurs en Europe nga ne yàlla tere ma indi ko équipe nationale boobu ñu liggéey ko wala entraîneur yi di ko laaj xaalis xalaatuma ko kii bu ko France wooyee ma ne ko jëlal nationalité mais réew bu demee ba toll foofu. léegi nag avec ce changement la da gis ne sénégalais yi dañuy commencer di amaat espoir ñu nekkoon bitim réew dañ leen di gis. organiser ay xew di dajaleel le parti. Mhm. di tey amaat espoir ne ah alhamdulilah amaat benn souffle bu bees. ah yow nag loolu ñetti weer rek nga ne dee souffle bi ñii dinaa leen bësaat. ñu duggaat. ñu duggaat du duggaat encore ci yaakaar bu tas ba mais doo leen bàyyi sax ñu dem. Mm-hmm. yow xamoo lii confiance. ami mu mel ni jub jubal jubante bi mu ngi ci yoonu baax de ginnaaw bi nga xamante ni liste bi nee nañ génn na ci. foyer terrorisme ba am ay nit ñoo xam.